a billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barakatu cheikh al xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk jullit yi bokk taalibe yi gannaaw bañ leen nuyoo seen bokkum taalibe Moustapha Guèye di taalibe sëriñ Moustapha moom sëriñ Maam Samba Mbàkke waaye di soppeeb sëriñ Mbàkke moom soxna loo Jóob Taayif tey ànd ak sëñ Muntaxa ci liggéeyal sëriñ Touba saa su nekk te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér lool tey roy Cheikh Abdoul Ahad ci dëgg di ñaanal mboolem xalifa yi sëriñ Mamor mu soxna Anta Kan mu soxna Saliloo xalifaam yi fi nekk yépp di ko dale ci sunu kër maam sëriñ mam Mamor boroom Sàmm ak euh, sëriñ maam Thierno Birahim Mbacke Darul Moxti ak maam Cheikh Anta. xalifaam ak euh, sëriñ Afia Mbacke sëriñ ma Massamba Mbacke sëriñ Balla Coro ak mbooleem xalifa yi nga xam ne tey jii ñoo fi wuutu ñi nga xam ne mooy kilifa yu baax yooyu di amaat mbekke bi ñu yàlla may nu fekke waat tal te ajjuma ji nga xamante ne sii moo tombeeg fukki fan ak ñett ci weeru mars 2020 yama fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab 1441 di àddoo fii ci Italie ci dëkk bu ne wax Martin Sicuro ci région Abruzzo fas yéene ko fee amal nag ak mbégte fas yéene ko fee amal it ak sant yàlla di ko def nañ ko daan defee rek ci di waxtaan li nga xam ne. mooy orma ji ñu wax war a jox siñ Tuubaa war koo jox dëkkam bi war koo jox xasidaam yi war koo joxante ci suñu biir tey nag muy numéro spécial bu ñu bëgg a jagleel kii nga xam ne waajur la ci ñun di magum taalibe ci ñun di sëriñ ci ñun muy sëriñ Abdoulahi Niang géewaloog Cheikh Amadou Bamba doon jàng katub xasida bu jeexal dundam gi lépp ci mbindum sëñ Touba moomu defe ko nag nanga xam ne ni la ko sëriñ Touba bëggee woon ndax jël ak ndawam digg dooleem baat bu neexam kàttanam yéeneem jébbal lépp sëñ Touba kon kooko xam ne baatub aslamtu nafsi yi moom da ko wane kuy dégg tur ci aslamtu nafsi yi muy jëbbal naa la sama bopp ba pare am leneen looy nekkaat lu bokkut ak lañ lañ la digal ak lañ la sant xoolal Baye Abdoulaye Niang mii kii moo dégg baatub aslamtu nafsi yi dafa jébbale boppam deseelatul boppam dara jël ko jébbal Serigne Touba féete ko nag ci fi nga xam ne fi la Serigne Touba bëgg ko fi féete. mooy doon jaamu yàlla bu nangoo jaamu yàlla waaye féete ko ci li nga xam ne mooy tagg yi mu daan tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loola nag def gam ko def na ko sëñ Touba déglee moo ko may tey mbooloo mii nga xam ne mbooloo mu dëgg la ànd ak moom gannaaw bi nga xamee ne dëdd na ci suñu bët ñu ànd ak moom gunge ko ba ca këram gu mu jigi ak témoignage yoo xam ne si yu am solo la yoo xam si ña koy wax xam nañ na la ñuy wax lañu jëme ko ci sëriñ Abdoulaye Niang ni dëgg la te benn ci man mii nag nga xam ne moom yàgg na maa wax ci mbirum xasida yi ni nga xam ne ni la ko sëriñ tubaa fonke woon ak fa ko sëñ Touba teg ak la ca sëñ Touba daj amoon ay jàngkat yu mu dajale woon daan leen ko jàngaloo ci njëriñ nga xam ne boo demee am na barab boo xam ne si ñu ngi ko tuddee barabu mawlit ma nga ca njëriñ am na ca Daaru Mooti ak bépp barab boo xam ne sëñ Tuubaa dafay joxe ndigal te ay mag nekkoon fa daan topp ndigal loole saxaloon nañ fa ay barab yoo xam ne fu ci mel ne waa kër sëñ ma sàmbak ak boroom daaru muxti ak ñu bëree bëri daanañ def loola ku ñuy wax Ibra Buna Fall ak Baye Mayib Gueye ñoom ñëpp kenn ku nekk dégg nañ seen carrière jaar ci keppaaru sëñ Tuubaa sëriñ Touba di leen jàngaloo xasida yi ñu koy jàng ci na sëñ Touba bëgg ko jànge waaye nag sëñ bi jàngal leen it orma ji ñu war a jox xasida yi mooy buñ koy jàng bu kenn wax bu kenn yàq ku naqari baatit bu ci ca bokk loola tax na tey ñooña am way bu mag ci sëñ Touba wax na si képp koo xam ne si soobu nga daw jëm ci xasida yi mag ñooñee nga war a def sa retroviseur di xool ci ñoom bañ caa jiital puukare bañ caa jiital addina bañ caa def benn intérêt bu dul jàng ko ngir yàlla ak ni nga xam ne ni la ko Serigne Touba santaane Baye Abdoulaye Niang nii nag ba mu ñëwee mag ñooña la daal di teg bat muy ñoom bu naag ak sëñ Mayib ak ña ca aju ñëpp te daan jàngal Serigne Touba ay xasida ñooña la teg daal di bët roy ca ñoom ba tey jii mu marqué ci ay point xasida yëkkati ko tey ba yóbbu ko foo xam ne tey képp kuy jàng xasida te yàlla tax bis bu mel na bu Baye Abdoulaye Niang mi ak carrière bu mel na bu Baye Abdoulaye Niang mii bëgg nga ko la ko may loola it mooy comme mag ñoo ñooñu ma leen waxoon rek xanaa daal da leen teg bët teggi ko ci jël addina nag taxañ teg na le am njàngam dañ képp ku koy déglu wala nga yàgg koo fekke danga xam ne lii may wax waxuma ko ngir ne jóge na fi rek naa ci wax la ma la ma bëgg a wax déedéet ndax mënuma ko sosal ndax dawuma farakant ak moom waaye li ma jot a gis te masoon ko géewal muy jàng ma di ko géewal loola rek laa mën a am preuve yu toll ne yii may bëgg lim di ko ci waxta ma zahid naa illa bi ma xadim na nit ki lu muy seere nay doon lu mu xam njàngam nii mu doon jàng wute na ak nii ñu ñuy jàng léegi fa mu tegoon xasida wute na ak fii nu teg xasida ndax dafa jëloon àddina teg ko na le jël ko di ko jàng ngir yàlla di ko jàng ngir ne Serigne Touba nii la bëggee ku ko nii jànge moo tax bi mu ko tëyee jëlee ndawam jox ko ko bi mu demee ba nekk mag xasida tëyal na koy mbiram addina ak alaxira kon ñiy jàng xasida bu ñu ne dañuy jàng xasida rek defe ne lii sëñ Abdoulaye Niang marqué mën nga koo marqué te na ko bàyyi Abdoulaye Niang daan defe ñoom defewuñ ko noonu ndax yaakaar naa ne day nii ñu koy def léegi di ci wut ay daraja di ci wut ay kër yu rafet di ci wut ay xame dem ba di ci roy sax musiciens yi nga xam ne ñoom xam nañ ne ci caaxaan la ñuy dugg su ñu demee nag ba jamono indi tey ay musiciens di jaxasoog ay jàngkati xasida xamal na jàngkati xasida yi nañ war a def dañ koo deful dugal nañ ci am po bëgg nañ àddina lool loo leen ci jox doyul ci wet gu nekk nag. ndax fi mu toll nii lii firnde ji mooy yii xew ci njàngum léegi mi bokkul woon ci njàng mii baay Abdoulaye Niang daan jàng ndax Baye Abdoulaye Niang xasida yi sëñ Tuubaa waxoon ne képp ku koy jàng ñooy fas yi nga xam ne war nga leen te ku leen war danañ la cëppal ci àjjana xasida yooyu <clears throat> muy xasida yu tagg yi Baye Abdoulaye Niang da ko mokkaloon baat bi neex lool mu koy jàng nag ci araf yu leer nangi yoo xam ne si kenn mënu ko dindi di ko jàng ci pas-pas di ko jàng ci làpp jël àddina teg na li ana xasida yooyu mooy yan mooy muxaddamaatul amda muxaddamaatul amda moom képp ku ko jàng si nga bunt yi ci nekk benn bu ci ne sëñ bi wax na diggal mag yonent bi sallallahu waaye boo xoolee xasida bi wax jës bul xulub bokk na ci xasida yi nga xam ne kuréel yooyu nekkoon ca biir njaareem sëñ bi daana leen ko yëkkatiloo guddeeg alxames gu nekk bokk na ci xasida gi ñuy wax bu ñetti xasida yii kenn mënta dégloo njàngum Baye Abdoulaye Niang ba mu jeex te dégluwoo ci mu jàng ci xasida yi genn loola nag dafa nekk lu am chance boole ko yeneen xasida yi lu ci mel ne jaawartu bu fekkente ne ci wàllu taalif yii nga xam ne taalif yi léegi moom kenn ku nekk nu na ngay taalif te aire musiciens yi la ñuy jël moom dafa amoon airam spécial boo xam ne da koo loon taalif rawatina bu mel ne bii ñu doon def Seex na Jaara Buso mu jàng ko ci njàngin woo xam ne ba fi mu toll nii boo ko tegoon amul kenn ko mën a jàng ci njàngoom Seex na Jaara mu mën a dab Baay Ablaay Ñaŋ du ci baat bu neex du ci wax ju jub du ci it njariñ loo xam ne si am na ko te teg ko ci yoon kon kooku bu jëlee lu toll ci ñeent fukki at jox ko xasida jël dooleem jox ko wan gannaaw njaboot wan gannaaw àddina dëgg mal yàlla kooku bi mu demee ba yàlla dogal ci moom la muy dogal mu dem ba néew doole yàlla dogal la muy dogal ci yaramam ba baat bi ma yetu ko mu yëkkati xasida xasida yi ñoo ko daw jublu yëkkati teraanga ji nit ñi daw di wutal seen bopp ñëw jukk ko ko jóoral te jëm koy jóoral àllaaxira mooy raw fukki yoon ak juróom kon nag jàngkatu xasida bu nekk mag ñi fi doon jiite di jàng xasida kuy jàng xasida te bëgg koo jàng te jàng ko ngir yàlla na nga roy ci mag ñii képp ku fi bàyyi mag ñi man ngaa am sa de daaji bopp man ngaa am sa fenti bopp di def am popularité ndax nit ñi am po lañ bëgg te njàng yi sax léegi njàng yi ñuy fool la nit ñi ëpp gën a bëggal seen bopp rawatina ndaw ñi muy gone yi ak góor ñi ak jigéen ñi. kon nag képp ku réyul ci ma Baye Abdoulaye Niang nii xamal na sam njàng wóor na la na des na te ku jël sam njàngam léegi nii natt ko ci moom Baye Abdoulaye Niang tam wóor na bokkuñu bokkoo ak Baye Abdoulaye Niang dara. mag ñi fowuñu woon fowluwuñ la lañuy jàng mën nañ ko jàng ci kanamu sëñ Touba di ko yëkkate mën nañ ko jàng ci bépp xalifa sëñ Touba man nañ koy jàng ci fépp foo xam ni nii sëriñ Touba nga fa waaye njàng léegi yii wóor na la ne bari na ci foofu mënuñu ko faa jàng njàng moo xam ne si góor ak jigéen dañuy jaxas njàng moo xam ne si ba ngay ñëw yaa ngi indaale sañse boo xam ne si danañ ku lool na sut xam ne àddina nga bëgg jàng moo xam ne si bala ngaa ñëw da nga ciy fayub xaalis. wut say tarif teg njàng moo xam ne nii sa tarif yooyu ngay teg da nga jëlandoo calendrier boo xam ne benn bis nga boole ci ñaari jàng bëgg dóor fii bëgg dóor fële ba finalement ay coow lay mujj indi njàng moo xam ne sii doo daw sobe dangay ngay jaxasoog ñoo xamee ne que ni wóor na la ñi arab nañ la ngay jaxasoog ñoom ci jaxasoon goo xam ne sii jërul yoon ku jàpp sa bopp na yaa ngi jàng xasida yi xamal na sa bopp ngay lor xasida kenn du ko fowee tey lii ci Baye Ablaye ña ngi am. ba keroog bi ñu koy denc xool tooy xëpp mu wóor la na kenn ci éléments yi sëñ Tuubaa yi dem na kenn ci éléments yi xasida yi dem na kenn ci magi taalibe yi dem na loola pas-pas rek ko mën a am ak dëggu ak gëm gëm gëm gëm yàlla gëm yàlla gu wér gëm sëñ Tuubaa gëm gëm sëñ Tuubaa gu wér agit nag jël orma jox ko xasida kon moom dafa bokk ci orma ji mu joxoon xasida su ko masaan jàng sax nii ñi def daw ko def ndigg li lay takk ñi koy aw daanaka moom ci digg bi lay nekk ñuy wër muy bàgg di dem ak dikk njàng moomu du am arrêté amul sax taxaw di laaj ay addiya amul taxaw nit ñi jóg di yàggaayu amul taxaw góor ak jigéen jóg di jaxasoo kon njàng mii mu doon jàng mooy njàng mi sëriñ Touba bëgg ko ko jàng di jàng araf yu leer nañ di génnee naxwu bi di génnee lépp ba ku ko dégg danga xam ni kii li muy wax ci mbind mu wéer la ko jóge waaye njàng moo xam ne si boo na capp benn araf. wala benn bayit jël ko di ko jël daaju bopp di ko daaj di ko jëlee ci musiciens yi di def ay kilipp dégg nga di dem di woote maanaam li nga xam ne mooy ay loterie nationale yi nga xam ne mbëri làmb yee koy def yow jàngkat bi ngay wàcc sa xasida yi wala nga yëngu ci xasida yi dem di jaxasoo ak ñoom ngir àddina soo bëgg dégg nga di rey ci ñoom bay wax naan ku ma wooteel nangam ku ma bëgg nag ma wooteel nangam ñi wut ay ay ay ay jeux yoo xamee ne ni kenn mësu koo xam sax ci ci ci ay xasida ñu fexe ba jël sobe soosee dem di ko dugal ci biir xasida jàng moo xamee ne ki nii fa nga xam ne fa la ñuy def émission bi nga xam ne mooy yàq xale yi ak ka def kooku bu ko organisé jàngkat yooyu fa la ñuy daje ja ñooñee day mosuñoo am fitu di def seen seen tappala yooyee dem di jël bàyyi Ablaye ña ngi naan ko dañ la ci éviter. wala ñu jël Fallou Ndiaye ñu ne ko dañ la ci invité wala ñu jël sëñ Donga Thiam ne ko dañ la fay invité wala ñu jël ku mel ne Akassa Samb ne ko dañ la fay dañ la fay invité wala ku jël ku mel ne Ibrahima Guèye ko dañu la fay invité wala ku mel ne Bolle nga ñëw ko dama la dama la fay invité su ngeen fukki xel xalaatu ko ñi ngeen fi gis ñëpp ñu bëgg àddina lañ di yëngu ci ay xasida di ay ndaw yoo xam ne si nangu noo liggéey jël xasida yi def ko métier te duñ ko jàng ni ko sëñ Tuubaa waxee duñ ko boole ak orma te lu ne lañ ciy dugal ci biir tappale yu lañ ciy dugal ci biir day dem ba dugal ñoom ak rëy dem ba mu yàgg mu dugal ci ñoom ak ceex ku la ci romb dala jox cati baaram di toog ci kër gi kër yi ñuy wut ay fan si këlëb ñuy ñëw di rang ci kër gi góor ak jigéen di jaxasoo ngay toog ci néeg bi di rocc par ñaar ak ñett di dugal loolu Baye Ablaye ñi ñii xamuñu ko woon ak ñoom sëñ Fallou Ndiaye ñoom ñii génération bii fi nekk nag nga xam ne tey ñooy jàng ñama ca mañ a mën a tudd nag laay tudd ci ña nekk ca la war a nekk tey jàng mu wér bu dee génération bu ndaw bii bokk na ci sëriñ àkk sa sàmb li ma bokk ak moom sëriñ nag taxul ma di ko wax damaa gis ci moom jàng mu dëgg gisit mu nekk feeg ci jamonoy sëñ Saliou Mbacké sëñ Saliou teg ko palaasam ba lii mu am mu am ko ba keroog gis ngeen heure bii daaw wala la ko jiitu tuuti teraanga ji ko yàlla jox bi ñuy def fête de fête de bi nga xam ne moom moom lañ xewal ci feeti tubaab yii moom la mu am ci teraanga jënd na ci ay otoom dem fekk magi jàngkat yii nga xam ne ñoo jiitu woon ci ci làng gi mu dem terale leen ko kon kooku xam nga ne àddina ñuru ko. te njàng ma muy jàng wér na moo tax teraanga ju ne mi ko ci fekk gis nga ko ci mel ne sëñ boole mbay sëñ boole mbay mii nga xam ne dem na ba daajam yi njàng mu leer naññi nañ naññi la koy jàng te lenn ni na doo gis mu yor ko doo gis sax mu sol mbubb moo xam ne si bu ko sumi woon bu ko joxee da nga ko sol kooku la muy jàng dëgg la ci moom sëñ Ibrahima Guèye bii boo ko xoolee xam ne la muy jàng dëgg la ci moom ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne mënuma leen a lim ak sëñ Fallou Ndiaye mi nga xamante ne si moog kii nga xam ne mooy maam Baye Ablaye Niang ñoo bokkoon génération donte Baye Ablaye Niang ko mag kon kuy jàng xasida am nga ay royukaay ku lay ku ne fi kupp mag ñi nag dem di roy leneen kooka sa affaire la xasida moom ñàkkul fayda ñàkk fayda goo xam ne si nit ki dina ko jël di ko foyee mu di ko seetaan ndax am na si ñoo xam ne si ku dégg ni ni jàngi xam ne du jàngoom dara toog di yëkkati di yuuxu di taasu boo dugalee benn baytu xasida dugalu walafal goog yow mënoon na sëñ Bay Jaxate ko bind mënoon na sëñ Musaa Ka ko bind yaay toog ba mu neex la rek nga jël sa eeri bopp di ko maanaam di ko di ko di ko fent ngir di ko defu fiir ngir di ko wutab xaalis loolu du njàngum xasida xasida ku koy jàng da ngay xool référence yii fi jot a jaar ndax fi ne Baye Ablaye ñu ngi nii ci jamonoy sëñ laat ay 1980 jàpp 81 te ñun booba tuux seeguñ Touba fu ngeen mas sa jëlee seen oto màggal bu ngeen nee junn biir Touba ñett daaj yi moom ngay jëkk dégg. da nga dégg fii sëriñ Ablaye Ñeg mii sëriñ Ndonga Thiam da danga ko dégg ak Baye Omar Diouf ma nga xam ne yàlla dogal na génn na àddina te lii mooy wax képp koo xam ne si yàgg nga màggal si da ko xam njàng mu wér moomu ndax si njàngum josaan la cosaan moo xam ne si sëñ Abdou Lahad Mbacke bëggoon na ko sëñ Fallou Mbacke bëggoon na ko ñi fi jamonoonteel ñëpp kuy ku fi mas a toogal sëñ Touba xalifa wala nga nekk ci la sëñ Touba nekkoon njàng mu bëgg nga ko ak ña nga xam ne jot nañ fee nekkoon ba yàlla dogal ñu jóge fi te bokkoon nag Baye Abdoulaye Niang mi ku ci mel na sëñ Abdou Khadir Sey taalibe sëñ Mahmadan ak ñu baree bari ñoo xam ne si mën na su ne sëñ Cheikh ñi ci bari ñoo xam ne si mënuñu leen a lim ñoo ñépp jaar nañ fi mag ñooñee eh, dañ daan jàngi njàng mu leer naññ nañ naññ naññ nañ te fi mu toll nii gis nga ko léegi ni njàng mi koo ci gis fi ne day solu ne naaf bu la gisee dalay lay teggi boo koy nuyoo da ngay rang dégg ne xugg ca biir di def loo xam ne si yow li tax nga man ko xasida yi la te xasida yooyu nag yow yaa ngi koy fowee ndax yaa ngi ci dugal lu ci bokkul kon nag na ngeen delloowaat seen xel ci njàng mii ngeen di jàng ak njàng mi mag ñi doon jàng duñu benn kon nag sëñ Abdoulahi Ñang yaa ñaanal sa bopp juróom-ñeent fukki at ak lu topp kat 1927 ba 2020 nga jóge fi sa menn mbokk jëppiwu la taalibab sëñ tubaa jëppiwu la xalifab sëñ Touba jëppiwu la xasida yi jëppiwuñ la gàcce nga foo mën a jëm yal na la yàlla leeral sa bàmmeel yal na yàlla teg ci sa njaboot loxo yal na nga fa fekk lu kawe sa njot ci ay xeeti teraanga ba bañatee dog mukk ba keroog ñuy taxawal bisub saaba su ko defee bis bu ñu ko taxawalee nga daal di xëcc day wombat la daal day dugal àjjana ni ku sëñ Tuba digee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf kon ñoo ngi taxaw foofu di leen jox dig daje ci beneen numéro.